salaamaaleykum waa Wakam maa ngi tudd Séga Diagne nekk conseil municipal euh, bëggoon àddu rek ci kàddu yu le maire de Wakam yëkkati ne dafa oote pour euh, réconciliation pour waa Wakam juboo euh, ni mu waxee ne day mel ni ne conseil municipal bi mu jiite ak texte yi ma gis ñu publier Facebook dafay indiru ne moom conseil municipal am na donc li des mooy euh, waa dëkk bi collectivité bi or conseil municipal am boobu na wax ne une partie di conseil municipal ñoom ñoo ko déggal ñun ñi nga xam ne ñu ngi laaj sàkku mu leeral ay mbir yu ñu koy toppee boobu léegi bu bañ koo leeral wax ji euh, wax ji muy wax ni engagé wuñu donc bu mu ne le conseil municipal day wax une partie du conseil municipal ñooy jóg pour jubboole waa Wakaam dama xamul nag kan kan ñoo xulo balaa ñu ñu naan da leen aw euh, bi nag boo xoolee daf may fàttali benn lépp bu naan def yi nekk xale mooy ñu naan ñamalaa ñamala kaay uy sama yaay ñun nag ñamala duñu ukki suñu yaay du ñu woy paaka loolu lañ loolu la tontu bi. mooy que ne oote bi yëpp boo xoolee côté coutume bi jaraaf yi nee nañ oote nañ pour juboo moom tam oote na pour juboo kanax kan ñoo xuloo ak la mool leen jotale li si am mooy c'est parce que dafa am suuf soo xam ne mu ngi si aéroport bi mënuñu ko jot waaw akam lu dul ne ñoom dañ prouver état prouver président Macky Sall ne waa Wakaam yëpp jubboo nañ pour que président ma leen jox waaw ab jubboo nag kenn du ko circonstancier taxaw lal ko ci intérêt boobu jubbu du sincère euh, c'est pas parce que dafa am suuf su war a dugg si rek ñu ne waaw nañ jubboo nangam sangam buñ paree jot suuf si ku nekk di xeexoo alors euh, nañ fexe kon teg yi fi si yoon. bañ a tuur ñi ñi lëndëm li ñu bëgg mooy wàllu suuf soosu noonu ñuy wax xam nga euh, dafa weddi woon ne taxew si mais léegi mu ngi bëgg a feeñ moo tax ñun bind nañ inspection d'état incha allah ñu ngi leen di xaar euh, président Macky Sall ñu ngi koy tamit ñaan moo di délégation spéciale si maire bu Ouakam parce li ñu fi bind see recours bari na. Euh, violations yi bari nañ euh, dem nañ ba agressé ñu ci conseil municipal boobu dossier mu ngi tribunal xam naa du yàgg dara dossier bi dina dina décanté wu ñu topp yoon ainsi de suite donc euh, bu mu ñu wax ne kaa leen jubboo juste parce que dafa bëgg ay suuf si dugg donc jubboo wakaam daal su ay suuf waru ko laal donc loolu laa bëggoon am su wax ne tamit. damay wax en tant que man Séga Diagne mais itam ñàkkul ne mes collègues conseillers dinañ ci àddu dans les prochains jours parce que loolu lañ prévoir euh, beneen mooy euh, pour juboo am dafa doon baax ñu xam situer les les problèmes xam ne lii mooy problème bi parce que nit ki mënoo def def say def def def def xëy xëy ne fàttaleen lépp nañ juboo fam benn boroom xam-xam bu ñu naan Léon Bouloy buy wax ne souffrir passe mais avoir souffert ne passe jamais mooy que ne ci collectivité bi comme ci commune bi ay at ci ginnaaw ñoom ñoo géré woon suufu Wakam gis nañ ñi ci def caxat caxatee ka ku nekk sédd sa moro sa bopp lu bari amuñu terrain amuñu dara tey ñu ne dañuy booloo pour am terrain waaw bu fekkee kenn si ñoom ku ne sa terrain yi nga am buñ ko boolee mat na terrain de football yow nga ne yow yaa ñuy xeexal pour ñu am am terrain de football mun ñu la gëm donc euh, na ngeen def noonu di préparer euh, am noo leen dossier yoo jox Macky pour wan ne juboo nañ ñun itam danañ def suñu dossier. Ah, envoyé président Macky Sall pour wax ko suñuy crainte ak suñuy jafe-jafe biir Wakam muy coutume bi muy muy euh, commune bi waaw parce que wàllu coutume mën nañ si wax rek benn ne loo xamee ni euh, ñu naan immeuble rose nee nañ Wakaama ko moom ban Wakaama ko moom loo xam ne ñu ngi koy loué recette yi kenn xamul fu mu dugg euh, waa Wakaam mooy ñan bu fekkoon ne ñoom ñooñ lañuy am si recette bu ñu jëloon sax def ko ci benn école jàppale benn école moo xam dañ fa tabax sàll de moo xam dañ fa pavé wala yu demee noonu sax ñu xam ne lii nii euh, dem na si waaw Wakam ñëpp parce que ku nekk am nga sa doom si Wakam waaye daal une minorité daal ñoom ñooy jël gérer loolu na bu ñëwee si wàllu coutu euh, commune bi waaw ñun euh, au 1306 DG ñun wax nañ si ba waxaat ci la commune à demandé nest pas de euh, pour disposer foofu espace pour équipement collectif léegi lu ñu mujjee dégg ñu ne famille euh, maire ñoom ñoo si nekk ay attributaire donc li si am mooy que ne ñoo ñoon dafa am ñoo xam ne dañ jekkul si jiite lu wàllu loo xam ne dafa euh, laale suuf parce que gannaaw xam na leen xam nañ seen jikko ak suuf donc ñun ñu leen def confiance naan euh, ay ay juboo donc képp koo xam ne ne yaa ngi nekk Wakam dafa yeewoo xamal ne oote bii nii du oote bu sincère on ne crache pas sur la paix mu voulons tous la paix bëgg nañ ñëpp juboo wante ab juboo dañ koy lal si lu sincère buñ ko lal si intéret bu fekkee ne dañuy bàyyi bu suuf taxaw feeñ ñu ne waa kaaren juboo pour jot si loolu sincèreul cinq ans ngi nii wala six ans mu ngi nii nekk ci boppu maire euh, mairie bi alors mais problème yi dafa am problème fukki jara euh, jaraaf yu bari dafa am est-ce que wax waaw beneen mooy ñun waa Wakam lan moo tax ñu war a nangu naan ay jaraaf lañ am au pluriel dans euh, bateau benn commandant lay mën a am donc yeneen yeneen jaraaf yi nañ tekki seen nombal tànk moo ñu am benn jaraaf ñu xam ne kooku mooy suñu jaraaf beneen bi mooy dafay araam sax ñoom ñu ne ay jaraaf lañ ku nekk toog kii bu waxee ne ah diw jaraaf beneen jaraaf jël wax ne ku nekk nangul sa bopp sa jaraaf mooy lan ay jaraaf yu juboo daal man kompaloo laa gisee donc daal moo taxoon ñu ne nañ si àddu pour que euh, ñoom nañ communiqué ba mu jot si président ñu xa ñuy yaakaar ne Wakaam Euh, ñëpp booloo nañ nekkuñu sax di rayante di xiiroo ŋaayoo wante bu ñu ñu utiliser bu ñu bu ñu sëlëm pour jéem a gëmloo nit ñi ne euh, juboo nañ léegi euh, président jox ma ma séddale président bul def loolu noonu boo ñuy jox jox ñu équipement collectif jox ñu ay fu ñu fubale jox ñu ay école jox ñu ay fu ñuy tabax hôpital wante ab dëkk di tabax rek jëmale di tabax ay kër rek lool du du kii nekkul li gën da ngay am yeneen yoo xam ne jumtukaay yoo xam ne dëkk dëkk soxla waaye nekkul ay fépp kër kese lañ fay bu mu jeex tag donc euh, loolu daal su ma gàttalee loolu laa si bëggoon sànni kàddu salaamaaleykum